soxna si ñëw ma Medina fii laa dëkk dama fay yeewoo ñëw def la nga xam ne tàmm nañ ko def eh, di ci sant yàlla parce que ku yàlla di may ngay def di defaat mooy yàlla may na la talak fekke donc balu leen ak di ko dolli sant ci liñ ko naan sant ni ma ko waxee eh, aada la fi aada te waa Medina di ko xaar parce que li nga xam ne moo ñu boole ñun ñëpp Medina bi ñu nekkee xale di foo nekk ay ci social living lañ doon wax tey nag ñu gën ko yaatal rek tudde ko solidarité parce que maintenant loolu moo fi am de këroo kër la buntu kër ak buntu kër yëpp janoo ñëpp bokk ñun ñëpp ñu yaroo ci biir kër bu ne yaroo yit ci mbedd mi mbedd mi tabax ñu defar ñu ñu bokk lépp dafa am kay kër yoo xam ne boo tuddee koñ bi dañuy xam kër ga ngay wax boo nee rue am nañu kër bu ñuy wax boo ne quinze xam nañu fan ngay wax boo ne fii xam nañu fan ngay wax loolu mooy réalité Médina donc ñu tey ñu toog nii yàlla dimbali ñu ñu bokk ak ñoo xam ni it seen ñeene dafa rafet ci nit ñi muy ma andal ci beno Benno muy ma andal APR ñoom it ñu ne kii seen activité la ñoom ñoo ko ma dama ñëw jëmal leen nañu ko sunu membre conseil économique sunu responsable yu jigéen ñi ñoom Khadinaar ñoom Seynabou Ndour ñoom Wuli Diop euh, ak keneen ak keneen ndey Cissé ak bi fi mbas mi duggee ñoo fi njëkk a dajale fi gel dajale fi masque ñëw indi ma tegal ma ko fii ne ma monsieur ministre lii la la si jigéen yi jàppale ma wut lu ma ci dolli ñu war tas ko jox ko ñëpp sans distinction amoon na fi ay coow sax naan waa lu tax nga dugg fii jox ko kii jox ko kële RFM sax ñëw nañ fa jox leen parce que dañ jàpp ni boo leen nekkee ñuy dugal ay nit yu dëkkul Médina yu fiy dëkk war na leen jàppale ci aar bi defeel ko ñëpp donc loolu la ñu wéyal tey donc dajale ñoom li ñu am indi di def tradition suukaru koor ma ñëw indi li ma am ñu mottali ñun ñëpp ñu bokk ma koy gërëmu jigéenu APR jeune APR jigéenu Benno Bokk yaakaaru Médina ak responsable Benno yi ku ci ne am na lu mu ci indi ñu dajale yëpp daal di toog waxtaan seet naka la nu koy joxe joxe bi gën mooy joxe bi amul par parloo joxe bi gën mooy mu egg ci ñu ko soxla ñu waxtaan xam seen gox ku nekk xam naka la ñu koy defee bu ñu demee waxtaan ku ci nekk ñu jox la solo nga seet la ngay wax ak imam bi nga seet la ngay wax responsable bi nga seet la ngay wax ak ñeneen ñu ko soxla te bañ ci fàtte sa bopp ñu leen di xamal ni nañu ko jox ñu ko soxla parce que ñoom leen concerné yàlla dimbal nañu ba tegal nañ leen ko buñ dellu see ku nekk na jot la muy dugal biir këram donc loolu moo fi ne di tradition bu ñu tàmm def di sant yàlla di ko defaat tey ñaan yàlla teewe fi déwén defaat ko gërëmaat jigéen ñi ak jeunes yi ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey sunu tradition nag noonu la ñun sunu yëngu ci fukki fan yi mujj lañ koy def moo tax souvent ni lañuy xaar ci suufaru koor mais feneen lañuy génn mooy añu korité am na ay jamono ay bon Auchan dañu génne woon joxe ko euh, pour nit ni añ biit it koy def rek euh, ni nu koy defee muy añu korité ceeb baax na ci dëwlin baax na ci soble baax na ci pombiteer baax nañ ci te nañ leen bett ci fan yi balaa muy jeex sax xëy na comme maa ngi suqilu ginaar yi xëy na ndam ginaar yu dugg bokk ci fii léegi ñaari fan maa ngi suqalu ginaar yaa ah, ñu ngi ci yoon bi ñëw euh, donc loolu la ba pare rek ñu boolee ci ñi xam ne yu ndaw yi safal affaire yi parce que ku woor weer vraiment bëgg nga premier ceebu jën bi ngay dànk jour korité mu saf saf donc loolu lañuy ñuy dimbalee jigéen ñi ànd ak ñoom def loolu di ñaan yàlla teewee ko déwén leen gërëm et puis di gërëm waa Medina bu baax a baax. mais ñaawlu ko rek te jàpp ni ñun ñoo war a dimbali CEDEAO pour CEDEAO nekk kuréel goo xam ni am na jëmm euh, parce que jàpp nañu que boo ko xoolee ci li yi wax am na revirement jurisprudentiel parce que nañu yàgg di juger mbir yu mel noonu ak bii ñu juger Sénégal dafa wuute ñu ne nag am na loo xam ne indi mun na indi jaaxle parce que réew mi gën a démocratique wala bi bokk ci gën a démocratique ci CEDEAO ah bu fekkente ni lu mu def nga sanctionné ko am na leen loo xam ne nga xool en vérité mbir mi dafa simple constitution wu Sénégal mi nga xam ne moo ñu mëdd ñun ñëpp muur ñu moo ne Sénégal léegi bu ñu dem élection dañuy parrainer lu tax Sénégal jël ko te amul woon bu ndëkk ba boo toogee war a organiser élection nga jóge 2014 am 2700 listes yu nekk en compétition nga jubal 2019 dégg plus de 130 candidatures annoncées bu fekkente ni responsabilité wu nguur gi mooy mu organiser élection yu jaar yoon dafa war a jël matuwaayam Sénégal warul tarxiis ba du mën a organiser élection ñu xool ci réew yëpp parrainage nekk modalité boo xam ne ñëpp accepté nañ ko Sénégal tànn parrainage boo xam ne du parrainage grand électeur parce que boo ne woon maire yi ñooy parrainé nit ñi candidat yi du ñu am ay parrainage parce que maire yi ñi ci bokk APR ak Benno dañu bari te duñ ko jox keneen suñu ko defoon ñu ngàññuñ ñu ne kon bokk nañ leen delloo kaddu gi citoyen te démocratie saa yoo jëlee kaddu gi jox ko citoyen bi yaa ngi suuxat démocratie maintenant li ñeen laaj nag la ñu wax parce que parrainage parrainage il faut que ñi xam lan mooy parrainage dañ la ni demal seeti sénégalais yi ñi bindu ci fichier bi ci dajale lu yees un pour cent bu ne nga jël ci lu yees benn pour ñu ne am nañ sa candidature mat lee nga indi mais ku mënul dajale lu yees benn ci téeméer bu bul jiñ keneen Le keneen te opposition bi nag nous xam ni ñu war a taxawee démba woon ñu ne duñ dem élection tant que defuñu audit fichier tant que nous wuñu def nañu audit évalué ñu ñoom ñoo bind termes terme de référence Le résultat yi génn leen de ni ëpp majorité bi doon wax looloo fi ne parce que daf ñu def audit avant présidentielle Nous ñi ni c'est fiable à 98%. Nous dix huit Nous cent ñu baaxul ñu ni fiable encore à 98%. léegi ñu ne d'accord ñu ci loolu xam nga dafa am ñoo xam ne mënul nekk euh, problème mu fiabilité du fichier bi jàpp naa ni opposition moo fiableul su ma xam fu muy taxaw donc nañu bàyyi yooyu te xam ni Sénégal démocratie bu mat la te ñu góorgóorlu góorgóorlu booy politique da ngay fekki nit ñi mais ku doy ku doyloo nag nekk ci réseaux sociaux yi nekk ci rajo yi Nek di wax bu résultat yi jotee nga gis ko ñun ñëpp yem benn dimanche la ñu raawal mooy dimanche élection lii ngay def yëpp cëfar cëfari tali bi dimanche boobu lay leer donc man nag dimanche boobu moo ëpp solo pour man du ci dem te ni daan damay ñaan yàlla mu defal ma ci ndam la la fay taxaw fekk ak ngi du fal télévision du fal décision bi rajo yeeg télé yi mën nañoo dimbali ci opinion bi waaye ñu ngi fiit fu lu dul dëgg yendu di wax bu dëgg gontoo tisbaar balaa tàkkusaan lu dul dëgg toxu